3 jëf mbokk yi safo seetaan seen làmb TV ñu ngi leen nuyu bu baax baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu bitim réew di nuyu senegal di nuyu monde entier di leen béggee bu baax a baax baax te làmb nag dañ dalal xam naa dinañ ko bàyyi mu nuyoo ak mbokk yi li si réew mi euh, li seen làmb TV Leuz maa ngi leen nuyu bu baax a baax dina bàyyi nga nuyu ak mbokk internet yi. waaw Kalidou salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier salaamaaleykum Sénégal waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di masawu ñëpp waaw di ñaanal ñaam ñëpp di sàkku ñaan si ñoom. waaw di leen di leen masaw bu baax waaw di gërëm diaspora bi bu baax waaw di gërëm képp kuy bëgg làmb rek làmb la ko lay bëggee di leen masawu di leen xam ne làmb yëg na affaire yëpp barki yàlla sama téléphone toogul billaahi wal kitaabi sama xol day sedd barki yàlla kaldu parce que nit ku la yëg rek moo am solo mbedd mi sax moo si dox da ngay dégg làmb fi nga ko téye fi la jàppal rek dina baax waaw mais sant yàlla rek waaw di gërëm waa Touba di gërëm Tiawan sama dëkk ak ñëpp waaw di gërëm ñëpp amul ku ma bàyyi daal ku mu lim da ngay juum di gërëm borom place bi moor waaw day jàmbaar place waaw day jàmbaar dëkk fii si marché koom waaw na si gaa yëpp jàpp nante yi hmm. waaw xam naa bu ma génnee dina gën a riir dina gën a yëngu day commencé hmm. mais si kanam mooy gën a neex parce que moor moorum làmb la quoi hmm. di xale bu gëm boppam di liggéey yàgg si affaire bii di sañseel yenn saa sax ma dugg fi filaay sañse waaw di ko gërëm mooy jaay semis yu baax yi waaw lépp waaw parce que làmb waaw gis nga làmb làmb ñëpp la waaw lépp lu nit di nekk rek làmb pare na pour jàpp si mu dem mm. waaw nekkaatul leneen parce que nit kuy góorgóorlu la ñuy dimbili mm. mais ku góorgóorlu dañ koy yedd mais kuy góorgóorlu dañ koy jàppale góor jàppale bi ñu mën mooy jàppale ko suñu image ñëw ci place bi def fi ay pëyu ñëpp jarle góor jàpp si góor téer di ko def si maçon yi sax mm. suñ bëggee ma ñëwal leen góor jàpp ci góor góor jàpp si góor góor nit day am njëriñ hop nit njëriñ waaw ah, waaw doole yemul walaay ndeysaan làmb ngi noonu mbokk yi dinañ waxtaane actualité réew mi démb gis nañ Gris Bordeaux lu mu def Paris lu mu def France ak lu làmb ñoo koy ñaawlu nit ñi di si waxtaanee mais balaa loolu dañuy ñëw si Ama bale ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux Ama bale déposé na médical ne daa blessé noo gi jàngate loolu làmb la waaw loolu yéen la bettu man bettu man kaldu loolu du ma bett. xam nga lu tax du ma bett. mooy kaldu dama la ne woon kaawoo bul amee si nit. trois mois ngay toog doo ko bëri. kaawoo laa la wax de buñ la dóoree rek nga kaawoo. trois mois ngay toog ama ñaat buñ la dóoree rek nga kaawoo. trois mois nga war a toog doog a tranquille pour bëri. loolu la docteur wax. daa kaawoon combat bi paas. non waaw non du kaawoo quoi kaawoo rek laa la wax. benn coup kat mu wàcc. trois mois nga war a toog moom ñaata la encaissé. ñaata compté ko. comme mbojum gerte. maa ngi dégg gaaraan ba 26. waaw ak 26 yëpp ñu ngi koy wax. Mm. mais loolu mu jël lool yëpp bu ko neexee mu xool mbir gi yaramam xam ne bu jëlaatee combat bu si nekkaatee. bu ko pertee je fansam yi dañuy wax quoi. kon mu dem mu def un peu de reculer pour faju ji. mais Ama li mu daj ci géew bi bu la ne feebar xaw ma ku muy waaye man laa mu woon. waaw. ba si la jógee. non ba si koy bay mais kanja jigéen mais fa lañ ko mën a rek mosul yàq làmb. ah ñu bëri nee nañ balaa muy bëreeg Modou Lo sax daa amoon blessure. waaw kon bu amee blessure def ci les jug daanu jugaat bëgg a daanu non Ama du ko nangu bu ko dee nangu seeni mbokk du si bàyyi parce que mbokk dem ba di jàppale si biir géew kon bu demee ba ne mënatumaa bëri dañ koy jawar a jàppale mu faju ji wér koy ñaanal daal mooy mu wér ñëwaat te ko xam-xam ne gaynde mais gaynde gi daal laal laalaake waxoon naa la mbër mu ndaw bu bëree ak mu mag bu jugee war am problème bu fa jugee mën na see am problème mooy bërki démb combat boobu kañ lay àjjeeku te xoolal la set xam nga jege na. waaw léegi lan moo ko. daa mel jàpp ne ko quatre fois mu mais lan moo ko dal sax bon ba pare daa feebar wala daa siburu wala bopp day yëngu. blessure rek. blessure ndëgg wala tànk wala lan. tànk ak yooyu. mais seede yi di ko laaj ba mat doog a ñëw. wax la sa ne kii est-ce que bopp ba yënguwul <laughs> ah vingt 24 ku si ku mat loo kuy posé 37 kilos. ndengeñ la di la ko booj ah. Ah, ah waroon ngeen a xool fan la feebar de eh. mais fu mu feebar rek mérito na ko ndax der la der der a koy daaneel mais der si biir géew lay feebare entraînement sax day jàpp mbër mbëri li ñuy jonkonteel ma billaahi sambalak nag li ñuy jonkonteel ñoom yàlla rek ko xam ndax mbër dafa metti mbër doo entraîné lu yomb lu diis rek ngay entraîné te dog da si yomb tooy da si yomb pour ñëpp bàyyi si xel lii moo tax waa Pikine war a def ndànk ànd bokk ndey bokk bàyyi xàccandoo dóorandoo ndax lu leen dal loo leen wax rek waa Pikine lay laal kon lu leen jàpp rek seen ngom ak seen ngor dañ kaa wala boole ñëw si làmb ji defar Ama Baldé ba retour am gën a tàngaat ndax Ama saa yu defee ale retour am kenn du ko téye def na retour quinze ans daanuwut kon gecca ngalaama Ama mais jël nay ko waxoon naa la ko. waxoon naa leen ba si koy bay waaye kànja jigéen. mbiskit mbiskit du dem si soos. mburu ñaar lay bañ. lan parce que nag asib leneen lool def si mburu mburu dem. ndeysaan dana ko gaañ de. loo koy conseil. ah ko ne ko ñaanal ko yàlla rek mu may ko jàmm ak taw tawféex. Mm. ndax ama der la. Mm. bu paasee neexal gi may neexal. Mm. ama der la. Ama bu la rombee nga xam ne borom jom la. kat mooy Ama Baldé. oh kooku boo koy wax fi ngay fanaan. kii Ama Baldé la. boo bu takkee bu bu la nee këng nga ne nii mu a la dama seet def xaalis. waaw waaw waaw waaw. Ama lay toog Ama non loolu moom dañ mais loolu déggatuma ko. <laughs> léegi Ama cek cek Ama la ñuy la ñuy xaar moo am. na ngeen xaar Ama ba mu wér. parce que Ama la ñuy topp moom déggatuma ko Ama la xaar moo am. Ama ama la ñuy xaar ah gut booboo gën a wóor moom la ñuy topp boo ko toppee fu mu jëm ku feebar noo koy toppee waaw kon ama la ñuy xaar mu ñëw yàlla na ko yàlla dooleel mayaat ko wér ba mu ñëw mais moo Gris Bordeaux du du yomb de gis nga ñaari musiba yi leen dal tey ñaari Gris Bordeaux nga may indil ak Ama Baldé ñoo waroon a bëre kii am na ah, ah, benn buñ ko ji kii am na benn buñ ko ji ñoom ñaar ñëpp laay fuddan maa la wax loolu ah maa ngi nii may mariné te comment pareegu ma du ñee ko ñebe de waxoon naa la dëkk ko yomb na waaye bëreeg moom daa jafe hop hop hop hop non gore rek mi ngi mel ne mii rek Ama mii dëkk ko yomb na mais bëreeg moom daa jafe de mais ku daan Ama nag lan la war a am dañ koo war a joobee moo waral joobe gii rek mais bu ko Ama daanoon loolu la ñuy wax Modou Lo pour ñëpp bàyyi si xel te xam ne làmb dafay ñëw pour ranger les sièges yi sièges jub segam ñoom bala Gaye laay wax lii gën ñoom Ama na dem xaaraat liggéeyaat ba si kanam roi des arènes bi soriwaat na ko liggéey dëgg koy tax mu àgg fa te am na jomi àgg fa parce que mbër yëpp moo si gën a nekk xale kon bu liggéeyee day ñëwaat ndax Ama borom yaaju baax la mën nga koo gas waaye mënoo ko rendi doo la yemul looy wax promoteur bi ñu bëri maa ngi dégg ñi ay rumeur yoo xam ne ñu naan ay combat bi est-ce jël sax jox ko beneen promoteur pour mu tëgg ko. waaw promoteur bi tëgg na 10 combat benn combat doo nga jàll is 10 yëpp a feebar moom est-ce que a saraxe bëy wu ñuul. lan ngay wax promoteur. waaye daa war a saraxe bëy wu tout wala tout ñuul. bëy bu lan. tout ñuul benn couleur. bëy bu ñuul. ah lu mu tëgg mu yàqu. na po. bi dooroon <laughs> xaaju musiba du ko dal moom musiba ance rek koy dal waaw kon na dem si maaraay waaye pas sama maaraay ñaanale leen ma Ibrahima waay. Ibrahima Bamba la solution. kii bu melee ni moom bu yàggee ñu bëri dañuy daw. te Bamba Milan ñoom ngi ñëw ñoom ñu ngi waaj a ñëw. ay promoteurs yu bees. waaw ay Ousseyn. Ousseyn ay ay Gora président Gora. Oh. mi ngi waajal ji ah, kii combat bi passé nii. ak si X9 saa bokkal loolu cura saa bokkal ñëwul signature bi mais X9 associé na te yeneen promoteur yu ndaw a ngi ñëw uh-huh. te promoteur bu mag bi c'est moo dóor onze combat benn jàll gis feebar ah kooku war xool ay bagaasam benn bi si jàll dóor ko si siège tina yoon de mais na ko état jàppale parce que borom jom la uh-huh. ndax chaque jour gars yi avancé mu tëdd at feebar mu lay xaar waaw Ibrahima Diop Diop nag mën nga koo doon bari jom waaw na gën a jéngu rek gën a góorgóorlu te wuti ñaan nag mbërëmateur yaa ngi koy ndengañ de mais lu gars yi naan ay Dubaay Dubaay est-ce que Dubaay làmm loo loo jàngate loolu non borom jom Dubaay ndax ndog la yàlla moo ko teg xëcc bu daggul waaw xëcc bu daggul bu yàggee bu yàggee mu teeg te buy dagg da ngay jaaxaan yàlla na dagg mu jaaxaan si lem waaye Ibrahima bul bàyyi parce que gëmal yàlla rek te xam ne yàlla moom lu mu la fang rek lu nattu bu mu la teg rek am na leneen lu mu lay teg lu ko dàq te lii dafa metti nekk ba jub combat u yàqu ñaata combat ma fi yàqu ay 39 combat mu yàqu na te benn bu si ne mbëri dañuy lekk avance dem te loolu métti na te xaalis bi muy jëlee moom rek a xam fi mu koy jëlee waaw loolu ku ne dañ ko see war a per père a jàppal rek yàlla jeexul yoon jeexu si lu waaxu si lu jeex lool laa lay conseillé te xam ne yàlla jeexul waaw gën a la muñ nit ñàkk na bakkan di dox yow xaalis nga ñàkk kon war ngaa mën a def daw loolu rek laa koy conseillé kii di adversaire am ñu ne déet waaye démb mondial gis nga lu jot a xaw fële ne nga xam ne ne mooy France ñu koy jiin ay sàcc vi ay sàcc parfon kenn xamu loo jàngate loolu. yow bàyyi ma yow mi ngi mel ne yow mu dem ba yow mu dem ba hôtel di lekk gerte caaf. non loolu Gris Bordeaux du ko def xalaatu ko sax Gris ngiree la gën a xam dëkk bu amee xaj ngiri dignité am passé na sàcc parfum ah. ah non non no non nit da nga koy waxal jikkoom quoi kaldu xoolal bu bëgg lu neex gaay ba du wax jikko nit ku la mere lu nekk mën na la kaa yàqale mais ku dem tëgg ma ca am teg lay tànk dama déglu rakk ji wax lu am sens mu ne giri musul musul nungu ko ko héberger Europe waaw tey la nungu ko ko héberger waaye tey la yàqule waaw kon loolu war na see mën a def jàngat moom parce que Gris Bordeaux li muy fayeku ëpp na sàcc parfum waxal mais héberger bi kii kii fay ko ay centaine de millions war nga dem ba Europe ñu ngay nangu ñu lay héberger. moom laa lay wax. Uh-huh. waaw mais nit da lay yootu xam nga iri bi bu lay iri. ba jàpp la doo xam lan moo taxoon ñu lay iri. Uh-huh. mais buñ la jàppee doo ko xam lan moo tax ñu koy iri. giri li taxoon muy bañ ba mu amul dul dara di beru. bi mu amee nungoo dem si nit ñi. mais gis nga bi mu demee si nit ñi li mu koy jura. moo tax nit dafa nit pour mu yàq nit dafa yombu mais nit pour mu defar nit moo gën a jafe te defar nit moo war a gën a yomb yàq ko parce que doomu aadama dafa riis doomu aadama looy wax si moom waxaat ko ci ginnaaw bëgg lu neex gars yi du tax ma ne Gris Bordeaux ko jël te gisuma ko. bëgg naqari waa bëgg neex Gris Bordeaux du tax ma ne Gris jëlu ko te xamuma lu borom daj waaw kon ñaar ñuy war garab. boo fekkul commencement ba man ba xam ma ko jiitu mais li ma xalaat ba xalaat ko mooy Gris. kuy kuy jàpp jaan waroo faale jiit. waaw kuy fayee koy million waroo mën a jël ay parfum giri buñ ko déggoon ci ay million wala ay milliards mm. nga xam ne giri mosul téye milliards ngorom mën na kaa jaay mm. mais ay parfum mm. non non non non bu leen giri leerale deme na neneen lu dul ay sàcc ko parce que giri gisuma si moom sàcc te jàng nañ alxuraan waa kër googu te yar nañ leen nit nag buñ ko yaree da koy seedeel yaram mais kenn du ko seedeel ay yoo xamante ni wax dëgg yàlla neexul si xol giri dépassé na sàcc xaalis jàmbur bay sàcc parfum man loolu laa gis. loolu nga am jàngat quoi. waaw dépassé na sàcc xaalis bay sàcc parfum ndax réel la borom teyul waaye réel réelaat borom a ko tey lii dina ko yee boo liggéey bu demee yee beneen mbër boo liggéey nga demee gérer seen bopp mais sénégalais ya fa ne ñoo war a am ngor di di di sàng gaay sutura parce que sutura moo gën a gis loo gis parfum day jeex rek mën nga ko amaat mais giree sàcc parfum du deñ ndax nit ku ko meree bu ko gisee mun na ko ne sàcckatu parfum bi. waaw ba si face à face. balaa jeexal bëre di nga dégg sa na gaan parfois bi xeeñ neex na moom ngay wax waaw xaayaan ku dégg séeréer. ngeen a ko. na boo ko waxoon ngir bëroo mu ne la moom ngay wax wallaay ndeysaan dootu ko defati de waaw waaye nag waa ji jéem na kaa yàq de waaye yàq nit yomb na de mais yow xamoo fooy mujje ndax lii nga teg ci deru Gris Bordeaux bu dul dëgg bu la Gris baalu doy metti ndax Gris fi ne nii ku mu rombum li ma lay wax rek boo ko nee parfum bi neex na mu ne loolu lay wax waaw giri may ma parfum fi ne nii boo ko waxoon fi ne nii mu ne parfum bi ngay wax de waaw kay kon mi ngi yàqal giri waaw na si bàyyi xel parce que sénégalais dañoo mën a yàq der quoi kon looy waxal nit rek da koy sóoraale nit da koy sàng sutura quoi même bu ko jëlee tamit sàng ko sutura te xam ne turu Gris Bordeaux dépassé na loolu doomu Gris Bordeaux sax xam nga ne du jël yëfi jàmbur waxuma la Papa Dia man gëmuma loolu man. boobu moom dañuy jëlaat beneen combat pousse fa ku demul arab arab firaw dem dibéeri abraha na jël combat bu saf sap bu méngoog ñoom yéegal ko grand combat lépp bële bu boobu ñëwaatee mu wutaat ay booy def si biir. bu yàqoo lu mu war journée bi yëpp. non journée bi yëpp mënul yàqu spécial ba neex na na wàcce spécial bi grand combat sax bu ko neexee mais bu ko neexee day jëli jiwaat beneen grand combat mais Moussa Ndoye Mamba la Moussa Ndoye Coins Moussa Ndoye di indi surprise Moussa Ndoye Mamba la Moussa Ndoye Coins Mamba la ak Mambaala borom top 5 ak Gris 2 xanaa neexaluma Mambaala neexoon nañ du dañ na Mambaala daa yokk état ku jëm avancé mu ñooña daw nañ ko jox Gris 2 am de mu suuree bis bu ñëwee bëre waaleel magam na jël Gris 2 wutali adversaire suuree bis bi bu ñëwee dina tuus bu tuus Gris 2 bu doxee nga ne Gris la te bis boobu bu ko bëree waalee dina am lu neex waaw parce que bisu magam la woon moom moo ko ratifié waaw. non lamb daa toll foo xamante ne kaldu bu yàqoo dañ ko war a suude lamb warul yàqu ñu jël bis boobu aj ko ba pare te am promoteur yoo xam ne soxla woon nañ bis bi mënuñu ko woon am yow léegi boo annulé bis bi bis boobu dañ koy perte te lamb amatul bis bu fa des bis journée yëpp jël nañ ko kon journée bi jëm koo togg rek mu ñor te doomu aadama nii dong la mën a jariñ waaw ñoo ngi lay sa moto bi waaw moto bi a ngi nii paan booy kaldu sonn naa si ñoom tey moom abo sañ-sañ sama batterie ba sax booy dóor nañ ma trippé. maa ngi lay ñëw fekk la ngay kaas. wallaahi. di wax waxi batterie bi. waaw batterie yi may dem ñu ne ma treize mille te batterie bu baax laa yoroon ñu waxati waaye moto bi ñàkk naa si xaalis ba mu vidé sama dépense. ana sëñ Fallou Seck. waaw borom tapis oh, kooku ñemeetu ma koo wax wéé. kaalu sëñ Fallou Seck ñemewu ma ko woo si moto bi kooku téléphone rek moo ko woon mu ne ma lu mu paat. dara jëy Mouhamadou Rasul. waaxe ngi noonu sëñ Fallou ko tax a jóg. borom jasinaire rek moo ma téye si moto bi vingt mille. 2000 francs billaahi ah def naa si 40 mille ñu ne waat batterie bi dem na 13 mille. Ah. ak ak ak ak ak ay kii nu mu tëddee di sax xaw ma. accessoire rek. waaw ay kii nu mu tëddee di sax xaw ma juin la xaw ma. juin waaw man moto miinu ma ko bu doon oto. Ah. dara du ma si manqué. mais moto miinu ma ko. te tamit man it may dox di puus neexul. te fu ma jëm tamit làmb làmb làmb ji. Ah. gars yi ñoo ma si war a mën a gën a jàppale gars loolu bariwul quoi ay 30 mille moto bi dem. loolu bariwul fan si mën nañ ko hmm. yar xoolal kaal du ñaar laa xëyee du 45000. dëgg la téeméer moo si des. xëy génnagul batterie bi yóbbu nañ ko. bi ko doon chargé. lañ ko jaawale yóbbu benn batterie sama batterie. dem bàyyil ma fa batterie bu bon. léegi xam ma ku ko yóbbu te taxawal vulcanisateur bi di ko paccal. ak sama tur fi mu toll. balaa caag ma bàyyi koog yàlla. dem wëriwaat leneen te xam ne noonu laa amee woon moto bi. Bambo laa solution waxoon na ne combat bi du noo gisee lool. non Bamba la solution ne woon naa leen ko fi maa la ko waxoon fee si bee nee naa leen bàyyi leen xelu Serigne Sa Thiès bi booy bi dina lëmbe gaay de. Bamba la solution moomu li mu lay maye dibiteri noonu la xam-xam bi bëree. ni ah, mu maye lan. ni mu noonu la xam-xam bi bëree. nga def jey Cheikh maa la wax loolu borom mbaxal ma. borom Bamba la solution borom mbaxalu poj poj baaju. kenn du moom de kenn du moom Bamba la solution demee reer boo ñibbi ndékki. kenn du te xoolal. Uh-huh. combat yi ñu wax ne du am yëpp benn amu am na bu mu waxoon Serigne. Uh-huh. Aroot uh-huh. Serigne mu jàmbaar temps moom daa mel ne kotom wàcc na de tee ñu koo jëli. eh fan bu ngeen paree bu ngeen nammee Serigne ngeen wax ma su ngeen namul Serigne tamit ñu bàyyi ko fee jàmbaar rek mais temps yi gën ngeen koo gis de. wallaay ndeysaan sama rakk la sama xarit la waalo waalo bi kenn du moom. mais waxoon naa ko kenn du bàyyi pom di jëli neew. lambaloog toog nii nga ko fi bàyyi naan da ngay dem yow yow damaa yaakaar ne seen bopp yi ah li si nekk du bu doon sukkar du sukkar si ñi tax ñuy wax de. maa moor bu baax borom place bi. waaw borom jom la. waaw waaw. waaw borom jom la. borom jom la dañ waaw fii yan saa fi la. lakkos yu baax yi. yéegal mu baax jóg. borom yu baax yi. non te original mooy lay. fii amul lu dul original. lépp original la. ay tubé yu rafet. waaw bu sa doom bariwul jarul ngay ñëw. ndax jiinam da nga koy sol ay at. benn amul ko mun na toog. no biscuit du dem si soos la. mburu ñaar lay bañ. salaat pos du salade ak ñax duñ ah, benn. Ah. bala nga koo ah, xam nga bineegar. kooku de boo si defee soble du dem. salade waaw salade ak soble ñoo jiboo ñoo ànd. mais ñax moom boo si defee soble da nga yàq sa bopp de. pourtant ñoo bokk benn tool. bokk benn maam ñu leen suuxat muy dox waaye guye lañ bokkul. <laughs> aan ko dégg séeréer. nan ñoo ngi dégg. waaw di gërëm ñëpp di gërëm sëñ àlla borom Bambey. sëñ àlla waaw sëñ àlla borom Bambey moto bi paan na de sëñ àlla. ku baax a ngi noonu sëñ àlla borom Bambey dama bëgg nga wax si moom. non sëñ àlla borom Bambey bala ngaa xam ne moo baax. nga dem seeti ko. Eh, Bambey xeeb ko. ba bay taax lu mu la tegal xeeb ko ku baax sëñ àlla boo soow demal da lay ñaanal di lay ñaagal wallaay ndeysaan wala nga naan xaas mënu la duggal sangu da ngay sangu sa yaram bi oyof tooy loolu mu deñ nga wedd dama laaj pop pop ba ma laalee ba may di ñëw waaw ba ma nelaw si yoon bi yëpp dem na ma ne ma laab booba sa coonaa deñ ta taa ba génn si man si saa si si saa si. sëñ alam ruqam bi bu la nee duggal boo duggee ba pare sa yaram bi li ngay yëg si oyof. Oh. moom da ngay yaakaar ne ay muul lañ la yenoon. laa ilaaha illallaah sëñ alam sama benn moodu moodu bi mu sangoo génn dana ma fajar bu mu daan jul juli juli ji. Uh-huh. dama daan jóg di onk. mais la mara la mara de la mara de doomu ndey Waly Seck ak Amady Badiane. waaw ku jàpp Waly mos xam nga ne keneen ku jàpp nga mel ni Fatou yaa sama sëriñ bi si jaama gën nag waxoon na ma combat bi tamit boo amee ma kaala la de. sëñ Fallou Mara. waaw sëñ Fallou. sëñ Fallou. sëñ Fallou Mara. happy birthday. day waajal anniversaire tey. waaw dundal loo dund bénéfice la. jaajëfal yàlla dooleel nuyul ma maire. nuyul ma ñëpp nuyul ma abo sañ-sañ. di nuyu sama waa di nuyu sama mécanicien bi. Uh-huh. sama mécanicien moto bi jàmbaar la nag ndax yóbbu naa moto bi fu ne bi ma ñëwee dana ma teg ko nii dinaa ko taal sa xol dina sedd leen rek moo ma si métti na mais gis nga bi mu taalee lépp a tàkk waaw di ko gërëm moom waaw moom noo rëy ni la tudd mu des batterie batterie lañ la aal mu des batterie waaw batterie lañ ma aal vingt mille francs mu des vingt mille francs dépannage du yoon dix mille du yoon trente mille jaajëf góor yàllaa koy jël borom géej gi moom bu koy dégg may dépanné eh, eh, waaye kenn du sëñ leen mën moo yow Seri Diarra. kenn day moo. ak Bana. Ah. jaajëf Diarra dundal loolu. jaajëf merci beaucoup. borom benn Bana.